أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين بصيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام তুমি রাখলে রাজাবি mbokk yi ñoo ngi ànd ak yéen ci qisasul anbiya ñu toll ci Muusa alayhi salaam ak njabarkat ya yaakaar naa sunu dars bu mujj tolloo nañ ci Muusa menace njabarkat yi dig leen rey ku méttee méttee métti waaye jóg sax exécuté rey googu waaye gis nañ njabarkat ya taxaw bi ñu taxaw ci kanamu Muusa ci kanamu Firawna ci dëkk gi ñu gis mu jaral leen ñu dee moo tax nit bu gisee dëgg bu gëmee dëgg dina ko jaral dee képp koo xam ne sa dëgg jaralu la dee rek dëgg googu dese nga tey ñu ngi jël sunu dars bi tegu ci diggante Muusa ak njabarkat yi mooy istainu billahi wasbiru ndeysaan tey fa Muusa tolloon bay wax wax ji ñun jullit ñi fa lañ toll mooy ndimbalikoo leen yàlla te muñ Moussa moo waxoon wax jooju waaye ñun jullit ñi foofu lañ toll tey istainu billahi wasbiru ndimbalikoo leen yàlla te muñ lamma tahayyara firaun fala yadri maza yasna ma nabiy allahi Moussa alayhi salam fa iza بالملأ والأكابير من قوم فرعون يتآمرون مع فرعون على موسى وقومه وقال الملأ من قوم فرعون أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك keroog ba Firawna gëlëmee jaaxle xamul lu muy def ndax gis na dëgg gu feeñ ci kanam ngoo xam ne Moussa moo ko indi Firawna réer gëlëm jaaxle xamul lu muy jëf ci la benn mbooloo bu ndaw ci wet nekk ci wetam nekk ay mag nekk ay kilifa ci la ñu def benn pexe ñu ne Moussa ñu ne Firawna ndax dangay bàyyi Moussa mu yàq société bi dangay bàyyi Moussa ak ay nitam ñu yàq dëkk bi mbokk yi laaj bi su ma leen ko doon laaj Moussa ak ay nitam est-ce que dañoo yàq dëkk bi ah waaye ñi bëgg nguur ñi bëgg àdduna chaque jour buur yi dañuy gis ne kii waxal yàlla naan yàlla nee na wala yonent yàlla wala boroom xam-xam taxaw naan yàlla nee na loolu def leen di day yàq seen politique kon kooku foog ñu noppiloo ko ci nii mbaa ci naa ci nii mooy ñu neexal la nga noppi ci naa mooy ñu dóor la bal nga dee mooy léegi saa nga dégg ñu ne la di nga noppi ci nii mbaa ci naa waaye xam ngeen ne ku ànd ak yàlla kese ñaar yooyu benn mun la cee noppiloo innahum yata'amuruun wa yaxusuun wa wa yuharriduuna firawna at-taaghi ala Muusa mbokk yi nee na gaa ñi jóg nañ def seeni pexe ñu ngi jël firawna ñu koy xiirtal ci kaw Muusa ñu ngi jël firawna di ko xiirtal ci kaw Muusa mooy loolu ngeen di dégg fan yi fan yi déglu naa ci télé bi ak rajo bi ay nit yoo xam ne dañuy xiirtal nguur gi ci kaw ahlu sunna yi naan leen li xew France mën na xew Sénégal yéen ngi toog nii rek di setaan waaye ñu ngi fii ci seen jàkka yi di waaraate ñu ngi fi di jàngale yor ay école ñu ngi fi yor ay daara na ngeen bañ a jóg loolu la nitu firawna yi doon def firawna ci kaw Muusa nan ko jugal dal ci kaw Muusa jógal lijjanti mbiru Muusa boo ko fi bàyyee day wax nit ñi bu ñu jaamooti sa yàlla yow firawna te firawna xam nga ne yow yàlla nga gaa yi léegi Muusa ak ay nitam soo leen fi bàyyee dañuy wax nit ñi bu la kenn jaamu ndax yow doo yàlla loolu la nitu tey àdduna yi di def parce que xam nañ ne ñi gëm yàlla kese kese kese def yonent seen royukaay ñooñu duñu mus a noppi ku leen déggal ku ne caaxaan dootoo ci dugg te caaxaan bu jeexee ci dëkk bi saay saay seeg bandi yi dootuñu noos loolu moo tax chaque jour ñi fiy jëlee caaxaan ak banditisme ak saay saay dañuy nekk noonu kilifa yi jiite banditisme bi ñu dem ci firawna naan ko hal sa tatruku musa wa qawmuhu yabuduna yabuduna allah wa yatrukuna ibada alihataka wa anta al ilahul azam gaay bi ñu demee ci firawna xam nga luñ ko wax ndax yow firawna dangay bàyyi musa ak ay nitam ñuy jaamu beneen yàlla bu dul yow te yow xam nga yow yaay yàlla ju ngand ji dañ koy wax li ngir jay ko mu sentir dooleem sentir pouvoir am pour dal ci kaw yonent yàlla Muusa inna hada yashmulu xat xataran kabir ñu ne soo bàyyi Muusa muy jaamu yàlla mu am liberté loolu danger bu rëy la danger bi fan la jëm ala mulkika ci sa nguur gi gis nga nit ñi bu ñu toppee Muusa yow di nga daanu te yow soo daanoo rek mooy alku nga ndax àdduna nga am wa sa yakunu sababu intishaari alfasad fi bilaadik allahu akbar wala déggan bu dangereux bi yow firawna soo bàyyee Muusa muy jaamu yàlla ak ay nitam loolu dina nekk danger pour yow te dëkk bi dana yàqu kon kuñ suñ jaamu yàlla dëkk bi day yàqu ah lan mooy defar dëkk bi jaamu yàlla wala mooy yàlla waaye gis nga ñoom ñu ne suñu bàyyee Muusa moom ak ay nitam ñu jaamu yàlla loolu danger la pour Firawna waaye danger la pour dëkk bi ndax dëkk bi day yàqu gis nga fi ñuy waxee ñu ne ko fala budda an tas'a li ijaadi xallin fi asra'i waqt gaawal léegi léegi balaa quelque temps nga régler problème bi nga indil ñu benn solution boo xam ne day régler situation bi suñu digganteeg Moussa luñ ci namm mooy Firawna na mobiliser armée bi comme moo yor doole ji loolu la ñuy wax de ñun ñoo yor doole ji dañuy fàtte doole ji ki ko yor mooy yàlla chaque jour nguuru àdduna yi sooy wax ak ñoom ñu ne la ñun ñoo yor doole ji loolu Ablaye Wade doon wax maa yor doole ji yor xaalis bi dañuy fàtte ne chaque jour doole kenn moo ko yor muy yàlla kenn amul doole ku yaakaar ne yor nga armée wala yor nga ay bombe wala yor ngay avion wala yor ngay char de combat wala yor nga armée ay nit ba yow yaa yor doole yaa ngi nax sa bopp wa anna al quwata lillahi jamian wa inna jundana lahumul ghalibun gis na te wa ma ya'lamu junuuda rabbik illa hu allahu akbar wa ma ya'lamu junuuda rabbik gis ngeen yooyu ngeen di sax yooyu ngeen di gis ñuy naaw sax ci armée yàlla lañ bokk yooyu ci soldaaru yàlla yi lañ bokk léeg-léeg yàlla yabal leen ci benn ponkal bu bañ a jóg julli fajar hmm? yàlla nee na sama soldaar yi sama armée man dong maa ko xam mbokk yi innahum yarawna anna ibadata firawna hiya aynu salah xoolal ñoom nitu firawna ak mbooloom lan la ñu gis mooy jaamu firawna mooy indi jàmm ci dëkk bi mooy tax dëkk bi naat topp firawna daf ko yàlla mooy tax dëkk bi baax te xamuñu ne ñuy jàpp ne wànn ibadatullahi tajlibul fasaad jaamu yàlla day tax dëkk bi yàqu wallahi loolu gaa yi doon wax ci firawna moom moo am tey ci suñu jamono ñu bëri dañ naan su ngeen fi bàyyee aada yi bàyyi fi li fi maam yi nekkoon bàyyi fi bàyyi fi dara du fi baax waaw suñu toppee yàlla nag buñ bàyyee loolu topp yàlla rek du baax yenn saa sax nga dékku ne yéen yàlla kese ngeen di wax moo tax seen dara du baax yow yàlla rek nga gëm ñu ne waaw ñu ne moo tax sa dara du baax foog yàlla ak ñaata yoon ngeen di dégg loolu yéen yàlla rek ngeen gëm nga ni waaw ñu ne yow di sa dara du baax yow doo tekki di nga fi yàgg ñu waxee rek nga ni yàlla yàlla yàlla rek waaw demal ndeysaan loolu la nitu firawna yi doon wax mbokk yi fa ma kaana min firawna illa an in faala wa ahasha bi anna daawatu muusa tumassilu xataran aziman ala mulkihi comme firawna pompe nañ ko jay nañ ko tiital nañ ko lan la mu jumu daal di préparer armeem préparer dooleem préparer kattanam parce que jàpp na ne Moussa danger bu rëy la pour moom ci nguuram fa asdara haza al qarar al wahshi mu daal di wote benn loi ci saase exécuter loi bi mu jël benn accord léegi léegi mu exécuté ko lan la wax yàlla moo nu koy nettali ci suratul araf aya 127 borom bi mu ne qaala sanuqattilu abnaahum wa nastahyi nisaahum wa inna fawqahum qaahiruun danaa rey seeni doom yu góor danaa bàyyi jigéen ñi maa ngi leen di yëgal ne ci rey bi may rey góor ñi bàyyi jigéen ñi lan laa ciy jële mooy doole lay teg seen kaw boo xam ne maay nekk seen kaw ba yowmal qiyaamati dootuñu ñu dab maanaam société boo xam ne ay jigéen kese la amul góor ndax société boobu dinañ avancé duñ dem xam ngeen dooley dëkk ñan ñoo ko yor góor ñi moo tax mu ne sanu qattilu abnaahum walam yakun hadha tahzib jadid ala bani israil faqad kana firauna yaqtulu zukura bani israil inda wiladatihim firauna lii mu ku tàmbali def nii nekkul njëlbeen lu bees bal tàmm na ko balaa Moussa doon juddu xam ngeen ne firauna woote woon na benn luwaa mooy lan rey leen góor ñi bàyyi jigéen ñi su ko continuer kon nekkul lu bees ci kaw banu israil wa huna bada musa alayhi salaam yusi al mumin bi sabr musa kon amul doole mu tàmbali di dénk julli ñi naan leen muñ leen takku leen ut leen yàlla ci ndimbal maa ngi leen di yëgal ne bi annar alra lillah yurisuha man yashaau min ibadihi wal aqibatu liman yattaqa allah wa yaxshaahu bi rey gi mettee di rey doom yu góor yi di bàyyi doom yi jigéen yi ngir bëgg leen noot Muusa tàmbali di woote ci banu Israil naan leen muñ leen sukkandiku leen ci yàlla yëg leen ne yàlla moom suuf si te yàlla ñi ko neex ñooy doon suuf loolu moo tax mbokk yi addina bi tey war nañu jàng ci qisasul ambiya lu bare bare bare bare bari xoolal benn nit wala ñaari nit Muusa kan moo ko doon dimbali bi muy wax ak ban ba muy xeex ak Firawna ko doon dimbali Moussa mbokk yi kan la àndaloon bi muy dem ci Firawna kenn Haarun ñoom ñaar kese cundung ci peuple bu toll ne Égypte Firawna jiite leen nga xam ne jamono yooyu Firawna dooleem daj na suuf si ndax lépp moom moo ko gouverner ay gouverneur am ñoo fa nekk ñépp dañuy joxe impôt bal sax nguur gi dem na ba ci àgg Firawna jayu ne maay yàlla waaye ñaari nit ñaari nit kuy gis danaan waaw ñaari nit ñaari nit kese mu ngi mel ne ñaar ñi doon xeex ak waa France fan yi xoolal ñaari nit allahu akbar yëngal lu toll ne France ñaari nit ñaar ñooñu ñoo yëngaloon Égypte loolu tax mbir mi doole du armée du ay nit yu bari ñaar ñooñu li ñuy tuuti tuuti tuuti doole dafa am borom doole bu nekk seen ginnaaw moo tax ñoom du ñu yëg wéetaay du ñu yëg dañoo tumuranke du ñu yëg amuñu arme du ñu yëg ne dañoo wéet xool leen ñaari xale yooyu fan yi yëguñu ne ñoom dañoo wéet yëgu ne ñoom yëguñu ne ñoom dañ leen menacé ne dañuy dee yëguñu ko parce que lan parce que xam nañ ne ñoo ngi ànd ak yàlla yàlla bi muy envoyé Moussa ak Haarun def leen ne dem leen inni maakuma asma'u wa ara dem leen maa ngi leen di dégg maa ngi leen di gis dem leen biñ demee bëgg a tiit mu ne leen laa taxafa bu leen ragal wa antumul aalawna yéen ñaar yéenay kawe yéenay gañe moo tax ku ànd ak yàlla doo tiit loolu moo tax su ngeen gisee yéeféer yi tey bëgguñu jullit ñi jàng alxuraan wala ñu naan alxuraan ku ko jàng da ngay nekk terroriste parce que alxuraan dafay former ay terroriste du du loolu mooy pas-pas bi ci nekk soo jàngee alxuraan ba comprendre ko da nga naan dellu dootoo ragal kenn ku dul yàlla kenn dootul rëy ci sa kanam yàlla rek Moussa muñ loo na leen ne leen muñ leen ànd leen ak seen boroom ndax moom moom suuf si yàgg yàgg yàgg yàlla ñu ko neex lay donn loo suuf si qaala Moussa li qawmihi ista'iinu billahi wasbiru inna al arda lillahi yurisuha man yasaau min ibadihi wal aqibatu lilmuttaqin Moussa nee na ay nitam muñ leen ànd leen ak yàlla ngeen muñ ngeen sukkundi sàkku ndimbal ci seen boroom sukkandikoo ngeen yëg ne suuf si yàllaa ko moom ku ko neex moo koy donnlu ci ay jaamam waaye mujjantal gi yàgg-yàgg ñi ragal yàlla ñoo moom suuf si لكن المشكلة أيها الأحباب أن أكثر الذين آمنوا مع موسى بعد قتل السحرة هم مجموعة من الشباب الصغير قد امتلأت قلوبهم خوفا من بطش والتعذيب من البطش والتعذيب mbokk jullit yi waaye problème bi fenn rek la nekk mooy ginnaaw ba firawna jàppee njabarkat yi exécuté leen rey leen ci kanamu peuple bi banu israil ay xale yu ndaw rek ñoo fa nekk ndax góor ñëpp firawna rey na leen léegi ay xale yu ndaw ñoo ci des ak ay jigéen xale yu ndaw yooyu dañoo ragal nii firawna rey njabarkat yi ak rey seeni baay ak seeni frère ñoom tamit firawna rey leen ndax xale mënul àttan yenn yi gis nañu seeni baay ak seeni mag yu góor firawna rey na leen gis nañ njabarkat yi tey dugg nañ ci diine Muusa firawna rey leen ñoom xale yi ñu ragal tiit ndax ragal balaa firawna di leen rey ñoom xale yu góor yooyu ñoom ñëpp ñeme wu ñoo gëm Muusa borom bi ne fama amana li Muusa illa zurriyatum min qawmihi ala xawfin min firawna wa malaihim an yaftinahum wa inna firawna la aalin fi l ard wa innahu la min al musrifin borom bi nee na peuple Muusa ñi àndoon ak Muusa xale yooyu dem nañu ba ragal gëm gëm gëm gëm gëm Moussa ndax ragal gi ñu ragal Firawna ragal nañ wàcc yoonu Firawna ndax balaa mu leen di fitnaal yàlla ne Firawna ku ngand ngandalu woon ci kaw suuf la da doon ngand ngandalu yemu ci waaye firawna ci yàqkat yi la bokk wa innahu la min al musrifin ci yàqkat yi la bokk ku yàlla ne yàqkat nga nag yàqkat nga mu tàmbali jàpp ci xale yi di rey jàpp góor ñiy rey sonal julli di trop sonal Moussa ak ay mbokkam ba fitna gi jéggi dayo ba sax banu israil ñu taxaw ci kanam Moussa di jàmbat naan ko usina min qabl an taatiyana wa min baadi ma jitana ñun de lor nañ ñu balaa ngay juddu waaye ba léegi lor yi dafa continuer ginnaaw ba nga ñëwee tamit lor yaa ngi continuer ndeysaan Moussa mbir yi nekkul ci loxoom loolu moo lay won ne mbir yi nekkul sax ci loxo yonent yi lan la leen tont qaala asa rabbukum an yuhlika aduwakum wa yastaxlifakum fi l ard fa yanzuru kayfa taamaluun muñ leen amaana bis a ngi ñëw yàlla dina alak seen noon mu donn leen suuf si ngeen remplacé fi mu xool moom yàlla naka ngeen di def kon muñ leen Firawna daal di jékki-jékki rek benn jour mu woote assemblée générale ñépp ñëw moom firawna mu ne zaruni aqtulu Moussa bàyyi leen ma ma rey Moussa nawoo boroomam na ko boroomam jàppale bàyyi leen ma ma rey ko moom firawna mu takk gàngooram préparé armeem Moussa daal di koy yëg yàlla ne Moussa génnal génneel banu Israil Égypte ñépp ñu bokk ci banu Israël nañu génn yow Moussa boo génnee Firawna dina la topp waaye bul tiit ndax bu la toppee ma topp ko Moussa daal di dajale banu Israël ñoom ñépp ne leen dañuy génn parce que yàlla moo nu génnee képp koo xam ne gëm nga ma man Moussa ne yàlla moo ma def yonent yónni ma su ma génnee nag ma topp gars yi daal di takk seeni bagage góor ak jigéen mag ak ndaw ñi gëmoon Moussa yépp nekk ay jullit ci jamono boobu takk seeni bagage Firawna tamit takk armeem ba mu yégee ne Moussa mi ngi waaj a génn waaye lépp ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala lay amee parce que yàlla mooy borom dogal bi mooy borom mbir yi firawna dajale na kàttanam bi mu am yëpp Moussa dajale ay nitam parce que amul kàttan mu déparé biir dëkk ba jëm frontière wu Palestine ak Égypte waaye ci yoon buñ naan mer Rouge Bahrul Ahmar foofu la ko jaaree moom fir Moussa bu mu génnee mbooloo mi ñu dox lu sori dox lu yàgg ba Firawna yëg ne génn nañ dëkk bi ñu ngi ca àll ba foo xam ne amul garab gu leen tiim amul montagne bu ñu làqatu amul xeer amul dara ña nga ca ndànd foy foy ba Firawna daal di takk arme bi ne nañ leen topp bi leen Firawna toppee nitu Muusaa yi comme dañoo génn fanaanee dox dox lu yàgg ba bët set ñu tàmbaliwaat dox ñu seen poussière fasu Firawna yi yëkkati suuf si ñoom ñoom ñu tiit Musaa ne leen dox leen ñu dox seen kanam daal di daj géej gi maanaam seen kanam lan moo fa nekk géej bu ñu tourné seen ginnaaw kan mooy ñëw Firawna kon tànc nañ leen mënatuñu dellu dem kanam mënatuñu dellu ginnaaw ñi àndoon ak Moussa nga xam ne amuñu imaan comme ñun lañ mel comme ñun lañ mel amuñu imaan ñu nga yuuxu naan ko Moussa tey ñu rey ñu tey ñu dee li yëpp yow yaay ko def yaa ñu fi indi xamoo dara yaa ngi nii jaaroo ci yoon bu baax bi nga ñëw di ñu indi ci géej gi te yow xam nga ne ñun yoruñu gaal waaye loolu yàlla yàlla la neex de yàlla bi mu ne Firawna Moussa génnal yàlla waxul Moussa demal ci géej gi Moussa dafa topp yoon bi rek di dox ba gestu rek gis Firawna di ñëw mu xool ci kanamam gis géej yàlla moo namm loolu yàlla moo bëgg a wane kattanam ndax yàlla mooy borom kattan yàlla moo la bëgg a wan ne man maa moom sama doole maa moom asamaan maa moom suuf lu ma neex laay def maa moom aljanna maa moom safara yàlla chaque jour daf ñuy won doole mais ñun duñ ko gis qissatu ibrahim yàlla won nañu dooleem nit ñi lan lañ doon ragal safara ñu jël safara sànni ci ibrahim yàlla won ñu ne maa moom safara pour ngeen bañ a ragal yàlla won nañu ne arme moo ko moom keroog ba ñuy rendi ismail ñuy rëdd paaka bi deewul kon yàlla wan nañu ne moom moom paaka bi safara si yàlla wax nañu ne moo ko moom teen bi ñu sànni woon Yuusuf yàlla wan na le bakkan yi maa ko moom tey firaaw naa ngi nii ak Muusa yàlla du ñu wan ne man maay borom doole maa moom maa mën maa mën lépp peuple bi Muusa àndal ñu ngi naan inna la mudrakuun way danañ ñu jot danañ ñu jot buñ ñu jotee luñ ñuy def dañuy rey kenn ci ñun du ñibbi Moussa mu ngi yor yat ci loxoom yat bi xam ngeen ne yàgg naa régler ay problème Moussa ndax yàlla waxoon na ko ci tuuru Sina wa ma tilka bi yaminika ya Moussa lan moo nekk sa loxo ndeyjoor lan la tont qaala hiya asaaya atawakka'u biha sama yat la loo koy dee ne dama ciy sukkandiku ku may xeexal ma dóor la ko su ma gisee bukki bu bugg a lekk samay gàtt ma rey leen ko waaye sama xar yi bu ñu buggee lekk garab gu ñu jotul ma bàcc bàcc xob yi wadd ñu daal di lekk waaye nag am naa yeneen ay mbir yu ma ciy réglé waliya fiha maaribun uxra mooy am na yeneen problème yu ma ciy réglé ndax bu may dox guddi moom lay bokk balaa agresseur yi di ma dab yàlla ne ko am na yat bi leneen lu ci nekk te xamoo ko waaye dinaa la ko informé moo tax yat boobu keroog bi Moussa ñëwee ba ci géej gi taxaw mu seen gis fasi Firawna yaa ngi ñëw lenn ci ulama u siira ñu ne bi leen fas yi buggee dab yàlla dafa jaarale seen diggante ak Moussa safara fas yi ñemewuñu traversé safara bi boobu situation géej gi rek léegul nit ñi tiit affolé ñi yoroon ay bagage sax commencé yenneeku seen bagage wax seen i caaya pour lan pour daw waaye xam nga ne mënuñu daw dem fenn c'est parce que géej gi moo nekk seen kanam yàlla ne Moussa jëlal yat wi dóor ko ci géej gi Moussa daal di gàddu yat wi daal di koy dóor ci géej gi bi mu ko ci déeree lan la nu yàlla nettali géej gi daal di ubbeeku def yoon bu rëy ubbeeku nga gis bàgg yi tegaloo géej gi ubbeeku ba nit ñi di gis suuf si wow koŋ koŋ koŋ tooyul mu ne banu Israël jàll leen ñoom ñoom ñu daw dugal seeni fas dugal seeni mbaam dugal seeni xar dugal seeni ginaar dugal seen lépp ku nekk ak sa bagage nga départ traversé ji jëm ñu dox ñoom ñëpp ñu daw dugg safara bi mu ngi téye Firawna pour du mun a ñëw song leen bu ñuy dugg géej gi ba ñu dugg ba jeex takk ba mu des Moussa kese moo mujjee dugg ba mu ngi taxaw di leen dugal bi mu demee ba mu xam ne banu Israël yëpp dugg nañ beneen wàll bi génn nañ moom Moussa mu bëgg a tëj géej gi mu bëgg a jàpp fi benn cat jàpp fi benn cat ne da koy tëj yàlla ne ko yàlla ne ko soo ko xamee ma jox la montre watrukil bahra ah watrukil bahra rahwan innahum mugraqun perte nga yàlla na montre moo la fi indi tey boobu romb na la yàlla ne Moussa bàyyil géej gi bàyyil géej gi sa yoon nekk ci bàyyil Moussa daal di bàyyi dugg ak yatam départ Firaaw na daal di dugg ndax yàlla xamal na ko ne ñii dama leen di labal tey wax naa leen sànq ne yàlla dafa bëri ay soldaar wa inna jundana géej googu ci lan la bokk soldaar yàlla yi la bokk bu leen yaakaar ne yàlla ay soldaaram mooy ay malaaka rek déedéet wala ay nit déedéet yàlla mbindeefam yëpp lu ko ci neex rek mu utiliser am na ku doon jaay doole xam nga yàlla lan la booleeg moom benn yoo xoolal yoo ni mu néewee doole comme waa jooju day ngand ngandul di jaay doole yàlla mu ne ko li gën a tuuti néew doole ci sama mbindee fi laa lay booleel mooy lan mu ne yoo waaw keneen ñëw di jaay doole romb mbaam romb fas romb gëléem dem yéeg ñay yàlla boole koog picc ay picc wala picc alam tara kayfa faala rabbuka ashaabil fiil ndeysaan chaque jour yàlla daf ñuy woon géem daanam am na ñoo xam ne yàlla dafa yëngal suuf si seen kaw ñëpp dee am na ñoo xam ne malaaka moo xaacu seen kaw ñëpp dee chaque jour yàlla dañuy woon kàttanam wala firaw na tey borom bi nee na leen comme moom moo ne woon yàlla la dinaa leen wan ne kii du yàlla Moussa bi mu génnee banu Israël yëpp génn firaw na soobu géej gi ak ay soldaaram yàlla mu ne fa nabaznaahu fil yammi wa huwa mulim maa ko jàpp nëq ko naan loo ko ci ndoxum géej gi ba biir bi nganday yàlla nee na keroog ñoom ñëpp laa labal bàyyiwuma kenn amul kenn ci ñoom ku rëcc ñëpp a lab kenn ci ñoom génnul loolu tax ñun jàng siira qisasul ambiya def ñuy jëriñ guddeeg bëccëg ndax dinañu jural ñu xam ne sunu borom subhanahu wa taala dong mooy borom kàttan kenn amul kàttan ku dul moom lu waay wiiri wiiri wiiri wiiri sunu borom mooy borom kàttan te kenn mënu koo rëcc moo tax bul ragal kenn ragalal yàlla bul wóolu kenn bul yaakaar kenn yàlla rek soo gisee wax naa leen sànq ñuy bañ ñu jàng alquran parce que alquran mooy masdar al asasi mooy balluwaay mooy teen mooy naanuwaay boo xam ne bu ci jullit naanee rek ne keng keng kenn du ko munal dara ndax lan sa imaan mooy dëgër kenn dootu la yéem alalu àdduna dootu la yéem doole dootoo ko ragal dootoo tiit kenn parce que yaa ngi ànd ak sa borom gis nga Moussa li mbooloo mi mu àndaloon yëpp di tiit di yuuxu Moussa moom mu ngi naan leen déedéet kalla inna ma'i rabbi yàlla mi ngi ànd ak man bu leen tiit man yàlla laa àndal boobu gaa yi gis nañ géej gi ñu ngi yuuxu gis nañ Firawna ñu ngi yuuxu waaye Moussa moom mi nga xam ne dafa ànd ak yàlla tiitul raful loo tax mu looloo tax mu leen doon wax ne inna ma'i rabbi maa ngi ànd ak sama boroom bu leen tiit kon mbokk yi ku ànd ak yàlla warul tiit ku ànd ak yàlla warul ragal warul yox yox yi ku ànd ak yàlla warul deltu ginnaaw waroo gis benn menace ci kaw suuf ba nga koy tiit lu tax yaa ngi ànd ak sa borom noonu la yàlla subhanahu wa taala alagee firawna waaye keroog bi ko yàlla di alag yàlla wax na ko ne dinaa la muccal maanaam naa muccal sa yaram ginnaaw ba nga deewee ba ma génne ko ñépp ñu doon doon wax yàlla nga danañ la tiim xam ne doo yàlla parce que yàlla du dee boroom xam-xam yi nee nañ Firawna keroog ba mu sóoboo géej gi ba vague yi tóoj ko mook fas bi mu yéegoon ak chariot bi yëkkati ko ba ci kaw dóor ko ci suuf mu tàqali ko ak fas beeg chariot bi mu xam ne day dem ci suuf commencé naan ci ndoxub géej gi mu tàmbale ne laa ilaha bëgg a wax laa ilaha illa allah te xam ngeen ne oustaz sànq mu ngi doon waaraate ci kàttanu laa ilaha illa allah bi mu ne laa ilaha xam ngeen man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illa allah loolu yonent bee ko wax ku mujjee wax say baat booy dee laa ilaha illa allah da ngay dugg àjjana bi mu ne laa ilaha rek yàlla mu ne jibril bu ma woo de bu ma woowee dinaa effacer sa tur ci malaaka yi ma jege jibril dafa dank suuf ci suufu géej gi bi firawna ne laa ilaha rek mu dabb ko ci gémmiñ gi tërëf loolu daal di wëlbati gémmiñ gi mu ne laa ilaha illa alladi amanat bihi bana banu israil amul benn yàlla bu dul yàlla bi waa banu israil gëmoon banu israil kan lañ gëmoon moom boppam parce que su waxoon laa ilaha illallah rek yàlla rëccal ko moo tax yàlla tël làmmiñ bi tuddul baatu laa ilaha illallah kon sànq oustaz lu mu doon wax lu am importance la mooy laa ilaha illallah yàlla bi mu woowee Moussa doon wax ak moom ci tuuru Sina bi Moussa séenee safara si jàll na yàlla feeñu ko Moussa taxaw yàlla ne ko yaa Moussa inni ana allah lan la ci tag laa ilaha illa ana man la maay yàlla maa la feeñu fii waaye maa ngi lay yëgal ne amul kenn ku ñuy jaamu ku dul man wa aqimi salaata li zikri taxawalal julli ngir fàttaliku ma mu tax ku dul julli fàtte nga sa borom maa ngi lay yëgal ne yowmal xiyaam day ñëw waaye nëbb naa ko pour kenn ku nekk ma fay la sa liggéey su yàlla ne woon yowmal xiyaam suba la kon di nga gis ku bàyyi ba deux heures du matin daal di ñëw nii tuub naa daal di jàpp sang ba rafet sol simis allah ju weex commencé o boo ko ne lan la mu ne la yowmal xiyaam suba la kon ñëppay tuub ci guddi gi moo tax yàlla nëbb ko kenn du xam yowmal xiyaam kañ la wa yasalunaka an saati ayaana mursaha ay fi ay saa yuqimuha allah wa yasalunaka an saa ka annaka xafiyun anha gaa yaa ngi lay laaj yowmal xiyaam kañ la mu ngi mel ne yow xam nga ko ban waxtu la ko yàlla di taxaw naan la yonent yàlla tont innama ilmuha inda rabbi yàlla moo xam yowmal xiyaam kañ la jibril ñëw na ci yonent yàlla muhammad laaj ko kañ la yowmal xiyaam lan la tont mal mas'ulu anha bi aalami min as-sa'il ki koy laajte ki koy laajte moo ko gën a xam eh kim koy laaj allahu akbar kañ la yowmal xiyaam na ko yow mi koy laaj day gënuma la koo xam ñoom ñaar xamante nañ moo tax omar hadis mu ne fa ajab naa lahu ñun ñëpp ñu waaru yasaluhu wa yusaddiquhu mu koy laaj di ko dëggal kon yowmal xiyaam kenn xamul kañ la ku dul yàlla tabaraka wa taala lan lañ xamul ci yowmal xiyaam kañ la mooy ban waxtu la waaye bis bi xam nañ ko de xam nañ tamit heure bi waaye kañ la ci heure boobu kañ la loolu lañ xamut waaye xam nañ yowmal xiyaam ban waxtu la xam nañ ban bis la yowmal xiyaam bisu ajjuma la lay nekk bisu ajjuma moo tax jàngeen ci xadis yonent bi nee na bu ajjuma mbindeef yi ci àdduna yëpp dañ naan kokk benn place di toroxlu ndax xam nañ ne ajjuma la yowmal xiyaam buñ demee ba heure boobu yàlla wax ne yowmal xiyaam moom lay am amul rek ñu daal di fiix firiiku ndax xam nañ ne heure bi passé na dootul nekk ajjuma tey waaye xoolal doomu aadama ñoom ñoom dong ñoo dul sentir loolu moom ñu ngi ci lu leen neex bi su vendredi yenn sax yenn saa yi sax soirée yi vendredi lay commencé nu mu tuddati kii bi weekend bi nga gis oto yi rang jëm sali vendredi circulation bi day xat fu gaa yi jëm mbuur waaw ñi ngi jëm ci tefesu géej yi ñi jël nañ avion yi ah te xamuñu ne vendredi mooy yowmal qiyaam ban waxtu lu tax ñu ne vendredi mooy yowmal qiyaam yonent bee ko wax loolu sax taxu ñoo jóg waaye dañ ko ci doon boros rek bisu àjjuma la yonent bi nee na xayru yawmin talaat fihi shams yawmul jumaa bis bi gën ci bis yi jant xëy fenk ci mooy bisu àjjuma ci la yàlla bind aadama ci la ko dugal aljanna ci la ko génne mu ne àjju yowmal xiyaam du taxaw lu dul ci bisu àjjuma ci ban heure tàkkusaan yàlla moo ko wax wala as boroom xam-xam yi nee nañ tàkkusaan googu yàlla di giñ mooy tàkkusaanu yowmal xiyaam bisu àjjuma googu waaye ci ban àjjuma la ci ban année la nga xamu ko est-ce que du 2015 yàlla moo xam yàlla moo xam de en tout cas lu kenn mënta réere ci ñun ak yéen mooy màndarga yi yonent bi joxe woon ne yowmal xiyaam jot na moom yu ndaw yi jeex na yu mag yi ñoo ci des muy juróom-ñett te am na yu commencé reyante bi ngeen gis deret ji di tuuru nii nga xam ne dootul arrêté yowmal xiyaam rek nit ñi ngeen gis ñuy deen yi comme weñ comme yow yaa ñëw ci benn mango boo xam ne dañ ko doon lekk ba sànni ko nit ci weñ yi tegee rek nga yow pompe lépp dee noonu nit ñi di deewe tey nga xam ne nit ñi dee yu metti la ñuy dee loolu daa bokk ci mandarga yowmal xiyam mandarga yu ndaw yi yonent bi joxo joxe woon mooy alaama saa as-sughra daanaka jeex na léegi alaama al-kubra moo des mooy mandarga yu mag yi mbokk jullit yi diggante firawna ak Muusa borom bi subhaanahu wa taala labal na mu firawna ci xabaar bu mu xabaar Muusa ne ko dóoral sa yat wi ci géej gi géej gi xar fadrib bi asaaka albahra fanfalaqa fa kaana kullu firqin ka tawdi alazim firawna dóor na yat wi Muusa dóor na yat wi géej gi xar na gaa yi dugg nañ yàlla mu ne fa anjayna Muusa wa man maahu ajmain doyoon na rek fa anjayna Muusa wa man maahu rëccal naa Muusa ak ñi àndoon ak moom doyoon na waaye yàlla mu ne ajmain tawkiid kenn desul xar yi sax dañoo dem ak copine yi ginaar yi àndoon ak Muusa kenn desul ajmain lu ci yàlla def Muusa ne day tëj géej gi yàlla mu ne ko watrukil bahra rahwan innahum jundun mughraqun Moussa bëgg a tëj géej gi yàlla ne ko bàyyil géej gi bàyyil géej gi ndeysaan firawna bi gaa yi génnee ba jeex firawna daal di sóobu yàlla daal di koy labal bi ko yàlla di labal mu xam ne day dee mu ne amantu annahu laa ilaha illa alladi amanat bihi banu israil wa ana min almuslimin ñu ne ko al an al an wa qad asayta qablu wa kunta min almufsidin tey nga naan da ngay gëm yàlla tey tey bàyyi ba dee nga xam ne yaa ngi nii da ngay dee tey nga ne da ngay jaamu yàlla du dem kenn du la ko nangul ndeysaan yonente bi alayhi salatu wasalaam nee na lamma aghraqa allahu firaun قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل فقال جبريل يا محمد فلو رأيتني وأنا آخذ من حال البحر فأدرسه في فيه مخافة أن يدركه الرحمة كسنا حديث بي صحيح رواه الترمذي وصححه الألامة الألباني جبريل نينا يونت يالا موسى كروك يونت يالا محمد keroog boo ma gisee ni ma sonnee keroog bi firawna di lab jibril nee na damaa sonn yonti yàlla muhammad ne ko waaw jibril lu la sonal mu ne dama doon bañ yërmande yàlla dab ko moom firawna wal moo lay wan ne yërmande yàlla dafa yaatu su waxoon laa ilaha illallah rek yërmande yàlla dab ko moo tax yàlla ne jibril bu mu ko wax de gis nga làmmiñ bi fañ ko fële mooy laa ilaha illa allazi amanat bihi banu israil lu tax jibril nee na maxaafatan an tudrikahu rahma ragal nañ boo xoon laa ilaha illallah yërmande yàlla daal di koy dab waaye ñu daal di tël làmmiñ bi mu daal di tarxiis daal di wax leneen lu dul laa ilaha illallah yàlla ne ko fal yowma nunajjika bi badanik li takuna liman xalfaka aaya wa inna kasiran min annaasi an ayatina la gafilun ndeysaan aaya bu doy waar a ngi nii ci aaya bi la ñuy jeexal darsu tey lu tax aaya bi nekk aaya bu doy waar yàlla nee na firawna dinaa rëccal sa yaram dinaa génne yaram bi ba jën yi duñ ko lekk géej gi du ko nëbal sa yaram dara du ci changé waaye lan moo tax man yàlla ma rëccal sa yaram jën ñi lekk ko géej gi yàqul yaram bi li takuna liman xalfaka aaya pour nga nekk sa ginnaaw kéemtaan ku la gis xam ne doo yàlla ku la gis xam ne doo dara mbindeef nga woon te yaa ngi nii dee nga moo tax ñi naan ñun ay yàlla lañ man yàlla laa dañoo dof ku naan man yàlla laa ana firawna mi doon wax moom yàlla la fu mujje dee na te de lu garaaw mooy tey boo demoon Égypte ñu ne la Firawna mu ngi nii tëdd ba tey jii yaram bi mu ngi exécuté mu ngi mu ngi benn place waaye lan mooy danger bi mooy boo fa demee da nga koy jaamu ku fa dem balaa ngay egg ci yaram bi da nga koy rukool ba pare da nga koy sujootal doo nga egg ci moom maanaam waxuñu la nga sujoot nii waaye gars yi ay bandi lañ kan moo musa dem fii ci wetu géej gi foofu ñu foofu ñu def nit kooku yor benn gënn daal di toog frenkulaay di xëcc poon bi dem nga fa nu mu tudd porte de di millionnaire millénaire jërëjëf gis ngeen buntu boobu boo fa demee sooy romb waa ji da ngay rukkool waa ji est-ce xam ngeen loolu ku fa dem jaar ci buntu bi rek su jootal nga waa jooju ci kaw loolu franc-maçon yi ñoo koy def pour lan pour di rukooloo julli ji te duñ ko yëg bunt bi la ñuy gàttal soo ñëwee rek ne nii daal di wàcc sëgg ñu ne la ah xoolal sa waay nee na du sujjóotal ku dul yàlla xoolal ah di la ree moo tax yooyu jarta dem jarta dem de fépp foo xam ne dañ faa def xërëm bu ngand ci xërëmu franc-maçon yi soo fa demee rukkoo ndax dañuy gàttal bunt yi léegi na yow bu la fa xullee yóbbee ak ak loolu ñu naan yàq temps dem nga naan da ngay dem visite soo demee rek rukkoo dama ànd ak sama élèves yi ma leen di yóbbu ñuy dox di wëri Dakar nga léeg-léeg élèves yi nga génne leen ñu yóbbu xam Dakar mu yóbbu leen ba foofu ñu ne dañuy dem man leen déedéet kaay leen ma wax leen fii lu fi nekk lu tax ñu gàttal bunt bi bunt yooyu dañ koy gàttal ngir boo yegsee nga rukkoo maanaam xërëm bi ngay rukkoo loolu xërëm la statut boobu ngeen di gis xërëm la dafa bokk ci siiñu franc-maçon yi ak fas bi nekk bunt RTS xërëm la yéen xamu leen Sénégal gi ay xërëm kese la loolu tax yu bëree bëri nañ ci tey am na yu ngeen di gis yu bëri statut yu bëri yu ngeen di gis ay signe franc-maçon la bu ngand bi ngeen ci gis nag mooy bi Abdoulaye Wade tabax temps yële paas booboo ci gën a rëy booboo gën a rëy ci signe franc-maçon yi bañ ngeen ko sax ba gis jullit ñi fan la ñuy jublu penk moom fan la wax lañ jëm mu ne ñëpp nii bu kenn ko def nii na ñëpp def nii mooy li gën a rëy ci Sénégal loo xam ne booy bàyyeekoo ci Sénégal di yéeg yéeg avion moom ngay njëkk a moom ngay mujjee gis su avion bi di wàcc moom ngay njëkk a gis gis nga mu ñëw ba foofu foofu la ko def booy génn Sénégal moom ngay mujjee gis sooy dugg moom ngay njëkk a gis loolu ñëpp ñuy tukki xam nañ ko soo demee foofu ci biir nag franc-maçon yi ci àddina bi yëpp seen photo ngi foofu moo tax ku naan Ablaye Wade du franc-maçon xamu mu ne damaa nekkoon tuub Ablaye Wade moo mooy seefu franc-maçon yi en Afrique ba léegi tuubul mu ngi ci am na ñeneen ñuy tuumaal ci nguur gi waaw Abdoulaye Wade moom bosam dafa leer nañ ndax lépp lu franc-maçon yi amul woon Sénégal Abdoulaye Wade moo ko def amal na ko doog a génn àdduna stade bi ku mu ko tuddee stade bi nu mu tuddoon stade amitié mu tudd mu génne ko tuddee ko kan ah lan la franc-maçon la aéroport bi muy tabax jas ku ñu ko tuddee lan la franc-maçon la su ngeen demee armeel yi yoof armeelu sumbu jun kenn suulu ko ci biir armeel yi fan lañ ko suul ci biti lañ ko suul ci buntu armée ci biti armeel yi parce que bi mu dee ñi mu bokkaloon jamono dañu ne xamuñu lan la kenn du ko suul ci armeelu jullit yi ñu suul ko ci biti catholique yi ñoom dañu ne woon dañ koy yóbbul ñu ne leen déedéet catholique yi ne déedéet catholique yi ñoom dañoo am fulla mukk mukk kii bokkul ci ñun kenn duñ ko indil ndax nekkul woon catholique jullit yi moom comme dañoo ñàkk fayda ñu indi ko ba ci seen buntu armeel yi daal ko koy suul miir bi moo ko tàqaleeg jullit yi armeel yi ci biti lañ ko suul ci biti maanaam mu ngi mel ne jàkka jeeg tali bi ñu suul ko ci tali bi miir bi moo leen séparé ñooñu ay franc-maçon lañ kon kay dafa leer nañ mu ñooñu moom moo leen ko tuddee mu nga ak yeneen ak yeneen yoo xam ne yal na yàlla woon dëgg bis ñu xam ne sunu diine ji su ngeen gisee mu yegg si fii tey dafa am ay bukki yu sàngoo ay deri béy yu nekk ci biir béy yi ay bukki yu sàngoo ay deri béy yu nekk ci biir béy yi xam nga bukki bu sàngoo deru deru béy ba pare nekk ci biir ci biir gétt gi ay balaa waa gétt gi yeewu laa ilaha illallah su fàddee rek béy yu yuuxu borom gétt gi yeewu daan ne nii tors tay mu gis yëpp béy la bukki bi ne nii ci biir béy yi ndey saweeg dafa sàng mu ne pourtant lii jaaxal na ma fii yëpp ay ay ay samay béy ñoo fi nekk bu tëddaatee rek mu fàddaat ay balaa muy yeewu fajar day fekk rey na béy yëpp mooy li ñu daal ñun jullit yi dafa bëri ñi ñuy tuddee ay jullit ci biiru jullit yi te duñu ay jullit waaw bu bëri ñoo xam ne jaay nañ seen diina dëppi lycée depuis lycée lañ jaay seen diine lycée lu tax ma jëlee ko lycée lycée la ñuy recruter franc-maçon yi ci lañ leen di maye ay bourse bu ñu amee bac ñu dem eggali ji seeni étude bitim réew suñ demee ñu former leen ba ñu ne këj ñu ñëw fi def leen ay ministre ak ay gouverneur ak ay directeur de société ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak ak nga defe ne ay jullit lañ fekk ay bukki yu sàngoo ay deru ay franc-maçon yu sàngoo ay deru jullit tur rek lañ am tur tur tur tur tur kenn du ci jullit dalan yàlla woon dëgg mu wërsëgal ñu topp dalan yàlla woon neen mu wërsëgal ñu sori ko assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu labayk